ko loolu mu xam naa damay bàyyi madame Indigo mi nga xam ne moom ah. waaw waaw waaw c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas normal wax nga dëgg nit ñi euh, jënd seen ticket ñëw mu demee noonu mais xam naa ne artiste bi taxawoon tamit di woy bëggewu ko woon noonu boo ko gisee ni mu ñëwee taxaw ni mu indee orchestre bi yëpp woy ba mu neex. moo ko moo ko indi woon mais je pense que ni loolu yëpp kooku gis nañu ko madame indi ko dina ci gën a bàyyi xel ak waa Grand Théâtre pour nga xam ni loolu nañ ci gën a gën a gën a bàyyi xel et merci beaucoup ci fàttali bi ñu ko fàttali dinaa bàyyi madame Indigo mu indi ci ay leeral mais je pense que ni artiste bi taxawoon di woy bëggeewu ko noonu public bi aussi comprendre nañ ni artiste bi bëggeewu ko noonu dafa euh, accident la am na mais tamit dinañu servir leçon pour madame Indigo teel matuwaayam que Indigo euh, loolu mooy objectif être dans la perfection euh, faire en sorte de prendre tout ça en considération en amont balaa jour spectacle bi parce que de à la fois on respecte l'artiste et les téléspectateurs et les spectateurs en question donc bien sûr ay erreurs euh, mun mun na bañ a ñàkk mais on va toujours faire en sorte de prendre certaines choses en considération pour éviter que le jour J que ce soit qui paye ticket, moi, moi, paye, moi payer les pots, casser les impôts. Mais encore une fois, je n'ai pas Samba, peut-être mon va arriver euh, de manière plus ponctuelle à la question. Mmh. Est-ce que vous nous un petit seul choix par rapport à l'abel bien Vas-y, encore. Oui, le choix du label en fait Indigo. Ouais, Indigo, je pense que je vais lier muy waa Sonatel Musique ñu nekk label boo xam ne ku ne xam ne depuis quatre ans maa ngi liggéey ak ñoom ñoom ñoo ma présenté waa Indigo ñu nekk tamit ay nit yu professionnel parce que xam naa ni balaa ñuy jot ci man dafa nekk lu wóor bu wóor wóor wala nekkul affaire bu professionnel lu dëgër du ñu egg ci man mais balaa ñuy egg ci man am nañ aw nañ ci kii kii euh, Assane Lo ñoom ñoo waxtaan ba mu lenn lii c'est quelque boo xam ne. lu dëgër la ma doog a jóge bi ma ñëwee dañoo egg si rek signé ko mu nekk la boo xam ne ñoom dañoo am envie liggéey ak Sidy Sidy Diop tamit gis seen professionnalisme ma am envie man suma label liggéey ak ñoom kon c'est une famille ñu ànd ci tamit waa Grand Théâtre je pense que fii li fi toog yëpp ñetti tur la benn jëmm la. ci waa indi gouvernement sama tel ah mais bien sûr ah loolu kay nañu waxante dëgg ànd boo gis kay doo ko gën ngeen ànd benn gis rek ba yem fa moo tax ma débuté ko nag bu ñu àndee ba pare yàlla nga ci gis sa bopp ñu gis ci ko defee ànd bi day gën a nekk incha ñun ak moom ci kàttan après après le 5 octobre incha allah bëri nañu ay projet yoo ni incha allah sama ay kilifa bu ci dugg waa indi ko rek dañuy continuer liggéey incha allah jërëjëf. alors ma benn question lay poser parce que ba léegi lu ma laaj donc je ne serai pas trop loin donc euh, lu may laaj en termes de spectacle parce que c'est dit mu soo foo woon dem donc coupe dafa doon rey sénégalais ba nga xamante ni partout donc gis nañ dafa nekk en terme d'africain gis nañ tamit li nga xamante ni ñu jógee Italie Allemagne Belgique ak yeneen dëkk doon ñëw parce que nag kumpa la ñu xool si yow lan ngay indi zénith alors am solo nga wax géejawaay bi ñu wanee ni salle bi fees na am na ay nit yoo xam ne doon génn ci mbedd bi di jubilé comme comme Coupe d'Afrique Sénégal nga xam ni dañu ma ko yéene te amul benn artiste boo xam ne rek nekk nga biir Sénégal te message yow wala nga wala nga bind ma page wala nga yéene ma gis bi rawatina ak sama nawle yi déplacé wu ñëw donc kumpa bi nag fii du du leneen mooy ku xam si Sidi Diop xam ko ci spectacle xam ni man damay woy ba pare fecc man. dangaa man nag dangaa man dangaa man man man bu ko gaa yi feccul sax man ma fecc ko muy un deuxièmement beneen kumpa bi ci nar a nekkaat mooy am na artistes yoo xam ne ñoom ñëpp dama leen a yóbbu ñu ànd ñu ñëpp ci kaw scène bi représenté Sénégalais mais am na ay artistes yoo xam ne ñu ngi woon fii Ndakaaru te peut-être seen cot wala seen yitte mayu ko woon ñu dem artistes yooyu yëpp dama leen di invité waat ñu ñëw boole kook artistes yi nga xam ne amoon nañu yéene gunge ma donc ñi demoon ak ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci yeneen programme ak yi nga xam ne ñi ngi woon fii mais mënuñu woon dem ñëpp laay dajale indi leen ci kaw scène bi mu nekk pour une première fois muy deuxièmement lii ma gis waa Indigo ak waa Subatel Musique Grand Théâtre ko ci son ak lumière loolu rek kumpa la parce que man joué naa spectacle bu nekk mm-hmm. mais li ma dijjee Yves Wane ma teg ci sama bët bi ma dee Sidi Diop ba tey yàggaguma nag ci musique bi mais gisuma ñu teg ko fii grand théâtre maanaam le jour même bu ma nga dagg sa ticket rek ñëw xool son ak lumière ak décoration bi ñu fa teg loolu rek jar na nga fay sa cent mille ñu décoreel la ko nga seetaan ko dem ñibbi li ci des nag man la Sidi Diop yow xam nga ni kii yaboo ak suñu duo waaw dégg nga loolu baal ma waaw en exclusivité xam nga man yàlla dogal na ni ku ma xam-xam ne damaa bëgg hip hop man man man man man mbalax man laa boo xam ni mbalax man laa boo xam ni ñëpp xam nañ loolu ci man man damaa bëgg hip hop man damaa parce que nag moom laa njëkk def li tax ma respecté rappeurs yi bëgg leen man samay texte da nga ci gis punchline da nga ci gis name dropping da nga ciy gis égotrip da nga ciy gis ay ay lu nekk lépp parce que man ni may bindee la parce que dama commencé ci rap ba pare mais nag jour boobu la Sénégalais di njëkk a gis diwoo kilifa kër gi ak Sidi Diop dañ ne nag ñaar moo mën kenn te ñett du bëri ñaar moo mën kenn te ñett du bëri ah mais nag bu bis ba ñoom ñaar lañ man kenn la mais nag ëpp lu leen ma dara Saalum de dina ma jaral dugg Saalum <laughs>